sëñ Gana Messere ñu ngi lay nuyu. waaw euh, salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëñ Babacar moo ngi lay nuyu bu baax di la ziar. di nuyu euh, kilifa yi nga xam ne ñoom ngeen seqal béréb bi di ñaanal nag Cheikh Mouhamadul Mountakha al alxalifa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko euh, ba li mu naal yéene koo liggéeyal Serigne Touba mu defe ko ni mu ko bëggee di ko ñaanal njabootu Serigne Touba ak yëpp ak kilifa diine yëpp ak jullit yëpp sëñ Babacar. jërëjëf sëñ Gana présentation bu am solo boobu noonu bi fi tàmbalee rek mooy mës naa nga wax ni da nga commencé à zéro pour ñëw au some ba fii si kaw kaw macha allah je touche du bois euh, tey bu nu bëggoon xam lenn sa jaar-jaar métti na wala neex na ak loolu si gën a marke waaw sëñ Babacar loolu moom dañuy sant sëriñ bi rek léegi nii sax boo gisee kàddu gi maa ngi jégalu mbokk yi mbokk mu ñëw di ma wax rek yoo xam ne day yéeme ci ma xalaat man ba ma fay toll ne mettee woon ci man. dalay yóbbee sax ay jël waaw wax nga dëgg euh, nun moom euh, di ma ko baaxoo di waxee rek njàmbaar indiwuñu fi sunu xelit indiwuñu fi sabablu nag am na waaye nun fi ñu ñëw Serigne Touba moo ñu fi indi li nga wax daf nu fekk nag li nga wax ñu tàmbalee ci zéro terrain boo xam ne dara nekku fi euh, nu nu nu jéem a góorlu ci moom dox ci ba mu dimbale ñu tey ji ba yu bare bari am ci xam nga nit moom bu fekkee ne dafa ñëw am lu mu bëgg am fu mu jëm amit lu mu bëgg a marqué ndax dafay nekk loo xam ne day lu yàgg tey ji samay cosaan di samay maam nga xam ne ay caddo lañ nga xam ne cedd cedd googu sax day nekk ci man ba léegi mooy waral bañ geeg kenn musulma moom kenn du la not sëriñ bi ñëw baaxal lépp nga ñëw nag comme ci démb ñoom xàmmee woon leen ci njàmbaar xàmmee leen ci fit xàmmee leen ci man a xare xàmmee leen ci bañ ku leen moom nu gis na nag loolu lépp am na solo waaye am na lu ko ëpp solo mooy ne ci sëriñ bi lu bëggoon a changer nag page bi fexe it ba marqué suñu apprenti ci biir lislaam marqué suñu apprenti ci biir yoonu murit mu nekk nag lu jafe ndax boo ñëwee fekkoo fii yenn moyen yi ci wàllu way jur yi ñuy góorgóorlu ci dalal la jàng nga xam ne maa ngi tàmbalee jàng ni ma ko bar baaxoo di wax nga xam ne man ki ma jëkk a jàngal mooy uh, sama sëriñ bu baax bii di uh, nga xam ne kenn ku nekk xam na uh, taxawaayam ci ci ci melo muy sëñ Fallou Mbacké nga xam ne kenn ku nekk xam na ko te gaa ñi ràññee ko it ci ci ci aw aw aw doxin loolu it bi mu amee sama waajur dugal ma ci école bii di Daaru Xudus jaaree ko ci sëñ Cheikh Jaxate bu baax ma yàlla na ko yàlla dolli leer nga xam ne sama mbokk la waaye moom moo nekkoon directeur école bi sëñ Fallu bi ma wax nag mooy sëñ Fallu ñu xam ne sëñ Fallu Jumaada moo ma jëkk a jàngal jëkk boobu maa ngi marché Ocass fii laa juddoo foofu ci kër sëñ Cheikh fii ñu def supermarché sëñ Fallu bi fii bi may jàngee nag école baa ngi woon foofu ci wetu ko moo tax ma ne moo ma jëkk a jàngal moom sëñ Fallu Jumaada ginnaaw bi nag sama wajur indi ma ci école Darou Khoudoss bi ma defi jàng ba am fi ibtidaay jóge fi dem njaareem bi may amee ixdaadiya di wéyal sama njàng nag sama sama sama samay wajur taxul fa lañ jógee foofu si fii tey sam moyen yu war a mën a tax loolu continuer waaye effort man bi may jàng ma ko boole jàng ak jàng métier maanaam boobu damay boole ba comme marché la bu may jàng école boole jàng moo tax bi may jàng avant may pare sax qualifié naa ci ci ci métier moo waral bi bi moyens yi jafee nag ma continuer woon nag di suivre téer ubbi atelier waaye teewul maa ngi jàng nag maa ngi gëstu ci boroom xam-xam yi di jàng foofu mu fees maa ngi bëgg yitte waaye nag ma jéem a xool it ne kenn ku ne am na loo jublu am na foo bëgg ma ne naa jëm ci euh, dox ci seen bi jëm ca dox mu nekk nag lu metti ndax te jii fii nga ñëw nii sax nekkul sama këru cosaan fii moom sama kër la man maa ko maa ko jënd tudde ko nooru daaree ni waaye boo moo nekk sama kër way jur fa la foofu sama way jur fa lañ nekkoon fa lañ tuxu si woon 1994 euh, mu nekkoon lu doy waar nag booba doy na waar lool yaakaar naa waxoon naa ko ci yenn interview yi doy waar gi mooy booba ndaw lañ way jur yi néew nañ doole bëgg nañ leen a taxawu mënuñu ko ñu boole bëgg a liggéey boole bëgg jàng mu jafe lool ci noonu nga xam ne tey jii nii nuy woore wala bu dara masaa xew na ngay amee yitte bëgg caa def na ko bëggee doo ko man ndax jamono ju ju xaw a doy ju jafe waaye nag ñu saxal ci suñuy nopp rek góor e, góorgóorlu leen dana baax ndax seen way jur jàmbaar la baax loolu sax moo indi ba sama way juru jigéen dafay teel a jóge teel a jóge lool waxoon naa ko damay bañ toujours di ci kenn di dugg ndax daf may sonal ci jamono yu doy waar circonstance yu xaw a yéeme mooy rek ñàkk moyen ñàkk mën a taxaw Euh, ba yàlla jëlee ko fii ñu continuer di dund loolu ba sëñ bi ñëw rek euh, ñu nekk ci nag di nap na bi di ko gëstu di ko bëgg di ko waxtaane di ko dund it nag di ko gëm ba mu jëlee ñu ci dimension yooyu yëpp fàtteloonu naqar yëpp li muy waxal boppam ne a'taytani mal xal ba ansa kullama mada min ad-durri ma hawaltu zulama yàlla jox na ma lu ma fàtte loolu lépp lu ma doon naqari dem ba barki dem loolu noonu noonu la ma sëñ bi def jële ma foofa fàttaloo ma yëpp waaye daal sëñ Babacar na nga xam ne par parcours bu metti la waaw boo xam ne bu mettee metti sax boo xam ne moom euh, tax na ni ma koy faral di waxee munu maa munu bew munu maa iñaan munu maa ñàkk dimbale nit ndax dama ko dund daal yàlla xam ne léegi nii rek dafa am ku ñëw di ma wax ku doon sëf démb ciment daanu ndax tàngoor yi moom moo waral sama jooy yu métti léegi maa ngi ci yërëm mais maa ngi xool man tolloon naa ci état boo xam ne sax man naa moo gënoon a métti parce que moom mënoon naa am matériel sax di jël ciment di sëf waaye man boobu du ma ko am sax waaw. Hmm. kon yow da nga fixé woon objectif ni tôt ou tard man dinaa bokk si ñi nga xamante ni dañ leen di dégg si yoon yi euh, objectif boobu noonu euh, da nga demoon wutee xam-xam wax nga nag ay gox yu bare yoo jaar euh, du durée boobu nga wut xam-xam métti na dëgg la mais ñaata at la ak loo si gën a dund lu la gën a marqué. waaw xam nga man ba nii man damay jàng xam nga léegi-léegi barki dem maa ngi koy wax léegi-léegi nga nga wax benn moo moo xam muy français wala nga wax benn moo ci nangam nit waaw diwlu man la leen léegi bi may gëstu man aw woon moyen te léegi am na possibilité mën a xam lu bari parce que am na jot gi ñaareel bi it amatuma nag benn lu may téye lu tax du ma mën a gëstu ba lu yàgg la parce que ba nii xam-xam mooy sama yitte sama xam-xam nag dama damay wax gaañ du ma du ma du ma sénécolo euh, sénécologue du ma islamologue man bambalogue la je suis bambalogue ah, mu taxassis fi shu'unil xadimiyya maanaam sëñ bi laa objet pour jàng ko ak dund ko ak jàngale ko nga xam ne gis naa ne man trace bi ma jaar pour réaliser mooy méthode bu sëñ Tuubaa parce que sëñ bi nit ñi dañ ko bëgg rek ci seen xol mu jaral leen di daanu jaral leen joxe seen alal mais réalisation sëñ bee ci gën a gaaw pour installation sëñ bi boo dee inspiré woo ci moom. tabaxee sa duna ci gën a mën a tabaxee sa àllaaxira parce que sa muamalat sa relation ni nga war a jëflante nit ñi négocier yi moral yi jëf yi ci lay gën a complété sëñ bi dafa bari ay façon loolu nag bi ñu koy gëstu di ko doxit lu yàgg la ndax li tax ma ne loolu yàgg la mooy tey fii boobu marché occas bii oto yi moom lañ daan uddi oto mbaar yi mat yaane booba juróomi dërëm lañ koy paas te dama daan dox juróomi dërëm lañ daan paas dama daan jóge fii jaar jeewal jaar ay waaw waaw <laughs> ay at ah, parce que vingt cinq francs yu ma jëlee saret wala vingt cinq franc yu ma jëlee oto du ma ko am ma def aller et loolu lépp dund naa ko ba sëñ Tuubaa dimbali ma ci bu baax mais yoon bu yàgg la yoon bu sori la sañ sëñ Babacar waaw. waaw mais lan lan mooy firndeel nii jàng boobu nga doon jàng am nga si diplôme mar nga si réaction nit ñi la wala dafa am sëriñ bu toog ni la léegi mokkal nga wala en fait lu koy firndeel parce que booy jàng dina am luy firndeel ni yow àgg nga. waaw xam nga xam-xam moom. mën nañ ko bañ a am sax noonu waaye lii ma yitteel daal muy sëñ bi nga xam ne gëstu ko waxtaanee ko la la koy la la cay xamal dalal ci sa xel mooy ñi di ñi la fi jiitu ba noppi nekk ay kilifa nekk boroomi xam-xam parce que Touba day millier boo xam ne day millier xam-xam boroomi xam-xam nekk fi tey bu ñu nangoo accepter sa dara rek ba bu ñuy wax boole la ca wala léegi-léegi ñu woo la def loola. waaw doo xalaat sax mais man man sa xel mën na dal ci ne ah man kat maa ngi góorgóorlu parce que ñoom duñ duñ duñ waa Kër Sëñ moom du àndeek nit di la jay wala ñu àndeek nit lu la neex parce ñoom ñoom lañ war a dabu mais pas ñoom ñuy dabu keneen dégg nga kon duñ neexal kenn kon tey buñ la geesoo benn yoon na la waaw góor wala léegi-léegi nga dajeeg tey surtout Sëñ Tuubaa wala nga dajeeg kenn ci borom xam-xam yi mu ne la waaw góor yaa ngi góorgóorlu waaw góor ni nga waxee keroog nanga wala nga bokk ak ñoom sax ay milliers ñoo xam ne bi ngay jàng booba xalaatoo woon ne da nga bokk ak ñoom ay jataay tey ay conférence am ñoom ñu waxtaan jox la nga wax wala nga wax ba noppi biir sa ñaanal wala même sax borom xam yu ne ci yoon yoo xam ne dañuy toog feneen def ay témoignage ci yow ñaanal la wala ñu envoyé lay message encouragé la kon loolu dana dalal sa xel ci ne góorgóorlu gi mooy taxit nga gën a def effort ci bañ a seen yaakaar ci waxtu waxtu ne ñuy jéem a jàng di jéem a gëstu di jéem a dox jéego yu sori nag tey jii dañ daan dox tey jii mën nañoo jël ay avion di gëstu ji sëñ Touba mën nañoo jël ay avion di dem fu ne mën nañoo jël ay oto di jéggi fi sori kon comme dañ daan dox di ko gëstu tey jii bu amee am na it mën nañoo toog mu fekk ñu fi nekk te te borom xam-xam yi dañoo baax mooy kenn ku ci nekk da lay ubbil buntu te xam-xam moom loo gën a gëstu rek mu gën a yaatu boo defee effort it mën a gën a avancer. mais si seen biir am na aussi ay critiques parce que en fait am na benn borom xam-xam mën naa wax ne sax euh, vétéran la mag la euh, si yéen la bokk comme waxtaan yi ngeen def déglu naa vidéo am dem mu ni bari na si ñi nga xamante ne ñu ngi wax si Serigne tubaa doon am ay source yu wóor dañuy wax juste pour bégal population bi ñuy génn di leen di jox euh, loolu loo ko jàppee critique la wala wala nu mu demee noonu daal wala boog yow noo gisee maanaam giseen bu ni mel parce que kooku dafa mel na lu critiquer yenn yi. waaw xam nga loolu xam nga dañuy wax ne diine laa biire la diinu nasiha bu fekkee ne yow kii li muy wax ci sëñ bi wérul te nga xam lu wér yow waxal lu wér la rek c'est ça le problème ndax benn ku peeg sëñ Tuubaa amul fi ne mën nga bari xam-xam ñi gën a bari xam-xam ci yoon wi ñoo gën a umpale sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa kenn xamu ko léegi tey mën nga jàpp ne yow sa niveau kawe na mais fekk na am na loo jàpp ne nga ko ci suuf xamuloo ko am na ko ko xam mais la boo gisee ne nit ki comme yow bu dee sa doom la wala sa jarbaat la wala sa set la mi ngi ci terrain bi di góorgóorlu parce que mënoon na nekk di def leneen di jéem a laayee biir nit ñi boo gisee ne wax na loo xam ne da koo wax te xamu ko wala mu jàpp ne na mu ko nettalee du noonu mais nga woo ko laa biire ko xisa boobu ni ko nettalee kat demee wut nii wax ko it yooyu lu wóor na ko déggee naa ko ci seen jiw wala jàngee naa ko ci téere sangam ah parce que critique bi du mën a ñàkkit nag encore parce que nag bu ñu jàpp ne euh, ñi ñi ci ne même ñi ne ci biir yëf yi day am ñoo xam ne faw ñu kii bëggal taalibe bi Sëñ Tuubaa moom kenn mënul koo waxal lu waxul. bu dee lu baax loo wax ci moom rek loo ko nattal rek fekk na moom mu waxal boppam lu ëpp lool loo ko jiiñ ci may gu ko yàlla may it fekk na mu am lu ëpp lool ci may waaye nit ki daal euh, yonent bi alayhi salaatu salaam dane benn jullit bu nekk mbokkum jullitam mooy seetoom boo gisee ci moom ayibam faxasal ko waaw parce que tey kenn ku nekk ki amutoon lu mu doon wax bu doon wër ci mbedd bi naan sëñ Tuubaa amul moroom it am ñu ko ci topp di ko jox seen alal parce que du nit ki. mais jëmmi sëñ bi la sëñ bi la nit ñi bëgg-bëgg koo xam ne boo amutoon dara looy wax ci moom lu may baatu sëñ Tuubaa amul morom sëñ Tuubaa amul morom day mujj ñu di la wër naan nañ woo kii naan sëñ Tuubaa amul morom mais du jar euh, parce que man damay leen di jox respect toujours euh, bari na ñu nekk ci yoon wi doon mag am xam-xam mais dañuy wax loo xam ne yow ci sëñ bi da nga xam ne li yow di wérut nga xam ko am source yu wóor ne wérut seen xelum bopp ci lañ ko teg ak seen xalaati bopp waaye yow da ciy man man daal ku wul sëñ bi ku touché wul sëñ bi. loo def mën naa ko supporter mm-hmm. loo bari bari xam-xam nag boo touché sëñ bi man danaa ñëw ci yow mais nag boo touché wul sëñ bi moom lu may di jubbantee nañ waxee nii d'accord naa parce que man lu ñu ko gën a wormaal gën koo teg lim moom gën ko jàngale nit ñi ci yoonu mat parce que mooy sama yitte man d'accord naa ku ko critiqué wul rek maanaam jëmmi sëñ moom ku ko critiqué amuñu benn problème ak yow mm-hmm. mais jàppoon ni amoo amul ay conférenciers yoo xam te ne dinañu dem di inventer juste pour faire plaisir public bi pour ñu mën a bég ak yooyu kontaan am na wala amul ci bi. waaw xam nga li ma la wax léegi mooy dama ne la sëñ Tuuba man péeguma lépp ba mën a xam luñ ko luñ ko luñ ko sosal léegi-léegi ndax dafa am yu fi jiitu yoo xam ne ña ko wax man ñoo may mag am na ci yooyu nag mën naa koy topp man moom am nekk naa sportif sportif boo xam ne waaw mooy bu ma nettali woon tey dara nii bu subaa ma dégg ci geneen kilifa mu wax lu gën a wóor loolu man damay rëpp damay effacé man li ma waxoon dama ko effacé moo tax lu ci ëpp mooy wax danga dégg ma ne maa ngi dégg ci sëñ wala nangam wala wax na ma te ñi may wax en général ñi ngi fi di dund wala mën a jëlee naa ci mbindum sàngam ñooñu ay ci sëtam a ngi fi wala ay doomam a ngi fi loolu jublu ci rek pour wodd li may wax mais du ñàkk loo gis lu mën a doon loo gis rek am na lu ca ndax yàlla jullit ñi am na ñoo xam ne nii lam leen digal defuñu ko am na ñoo xam ne ñii jëfandikoo bokkul ak li yàlla santaane boroom xam sax day am xam ba noppi teggi xam-xam ba di doxee na ko neex di wax la ko neex di sosol yàlla di sosal yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon sëñ Tuubaa du ñàkk comme am na ci ñoo xam ne bëgg leen ci yóbbu waaye xamuñu mën naa am léegi-léeg ñu wax lu ceelu waxin woo xam ne lu demee noonu loolu it man lu ma ci gis te gis lu ko gën a wóor mën naa koo wax waaye duma ma kooka it ci ci ci nang waaw euh, mais mais pour gën a mën a xam le sëñ en fait milieu yi mu demoon maanaam lu si mel ni euh, Gabon exil Saint-Louis aussi wala Dakar wala yenn dëkk yi nga xamante ni jaar na fa Sarsara ak yooyu est-ce que jot ñu defaat retour aux sources delluwaat foofu parce que dama gis ne nasaraan yi ñoom bu ñu topp toujours histoire dañuy def ay recherche dem balaa surtout ñooñu ak yooyu suñ Gana Messere est-ce que loolu dal na ko def recherche ba génn réew mi. waaw maa ngi def ay recherche nee naa la déggoo ma ne la koo xam ne da ngay waxtaan di dox di gëstu di dox wala ngay luyee welo tey boo demee ba mën a jël ay avion xam nga tey ba ci xam nga garam basam lu ëpp ci yoon yi bu ñu daan nettali dañ naan sëñ bi dafay jaar dafaa jaar jàll mais man maa fa dem ba xam ne la trois octobre la fa sëñ bi ñëw 1895 bala 23 kon 20 jours la fa sëñ bi diire dem naa fa ba teg sama loxo fii bato yi nekkoon rës gëstu ca loolu du du du du même boo nekkee en extérieur noonu ngay gëstoo tey fii demoon Nantes wala nga dem Bordeaux euh, da gis ne. ba ci ba ci ba ci ba ci loolu sax fi ne day sori waaye ci biir réew mi nii rek xam nga xam nga parcours sëñ bi dafa gudd xam dafa dafa gudd ba noppi dafa bari yu yu nii tëb fi ne tey wax benn tey jii bu dee da ngay tàmbali ba ci Mbàkke Bari gi tàmbalee dem naa fa nga tàmbalee dem jeewal dem Louga nga dem Ndar nga xam ne site yi sëñ jubaa nekkoon bu dee fu ci nekk waxtu wu ne man bu ma toogee loolu lay gëstu di ko xool foofu sëñ bi jaaroon yan relation la amoon ak ñooñu bu dee gànnaar relation yan moo amoon foofu millier yi sëñ bi nekkoon bu dee ci Gabon wala programme bu ci nekkee rek foofu sëñ bi nekkee woon ba démb démb démb démb rek bi une di jot maa ngi maa ngi maa ngi ci gëstu boo xam ne mi ngi ma jox ma toll ci câble bis nga xam ne maa ngi ci programme yooyu pour xam fii yi fi sëñ bi doon dund jamono bi mu fi ñëw ban situation ci la nekkoon nan la fa doxale woon parce que damay seetlu général xasida yoo xam ne ay waxtaankat dañ koy nettali mais bu ñuy nettali xasida googu man naa am day ne xasida géej gi ñu indi ko ci jéeri ji wala mu ne xasida géeri ji yóbbu ko ci géej may may jéem a nattale nag di xool ba xam millier bi bi fi sëñ bi ñëwee li mu waxoon fu mu tolloon te loolu ay effort la ak ak gëstu mooy waral en général may gëstu ci nasaraan bi léegi-léegi doon ko ne du ma sukkandiku ci ñoom à cent pour cent waaye ñi nga xam ne bi dafa jamonoonte ak ñoom ñu nekk boroomi xam-xam nekk ay waliyu ak ñu chéré ak ñoo xam ne nii doonuñu sax ay murit waaye dañoo amoon ak sëñ Tuubaa yenn relation yi seen waa kër am ak sëñ Tuubaa yenn relation yi am yoo xam ne sëñ bi moo leen ko wax ak mag ñi boo gisee mag ñi toppoon sëñ bit may gën di gëstu ci ñoom mooy mel na mag mu ne am na secret bu sëñ Tuubaa waxanteeg yow am na lu mu jëflanteeg am na fu mu jaaree yow tax waaw. jërëjëf sëriñ Gana dañuy ñëw nag euh, si euh, waxtaan bi euh, sëriñ Tuubaa bi muy feeñ jamono en fait nan la ko cheikh yi boo indiqué ko ñëw fekk ko si place ñëw ne kat yaa nu doy loolu nu mu dikkee parce que boobu téléphone amul rajo amul waaw loolu xam nga leeru yàlla dafa garaaw wa dahru kaana zalaaman xabluhu wa ata badran sara baxdama leylu salaamu saja wanaasu jaa u wa min anwaar sabu am bi beeñee rek xam nga jamono bu nekk suñ boroom day am comme tànn jox ko muy boroom jamono sëñ bi avant muy ñëw jamono sax am na ñu xam ne mi ngi ñëw te booba ñëwagul man nga ci cité comme Cheikh Omar Foutiyou Tall Cheikh Omar Fouti Tall bokk na ci wàllu yi yàlla njëkk xamal kii moom jamono Ahmadou Bamba la tudd nga xam ne bi mu jógee Makka dafa ñëw Mbakke Bawol kii Cheikh Omar Fouti foofu mu daanu woon fii la sëñ Tuubaa feeñee jamono bi mu gisee sëñ moo Anta Sali ak soxna Jaara dana leen kii moom jamono yéen ñi yéenay doon way juróom kon am na signe yoo xam ne bu yàlla waree yebal dara am na lu muy def bi sëñ bi ñëwee it ba feeñ jamono melokaan yu mel yàlla bu ida araada la am hayya lahu al asbab fi ne yàlla bu bëggee dara moo koy wutal ay sabab programme bi mu melee noonu askan bi mu ko tànnal mu mbàkkee mbusoo bi ñu nekk ay shérif mu feeñ seen biir nag indi woo wuuteeg bi fi amoon di teelal a naafile ci juróom-ñaari at booba dalagul jàng wane ak sàmm nanguwul a jaxasoo wóori àdduna yi du du jëw du wax ab safaan foo ko fekk day jaamu yàlla di beru nit ñi bu nit ñi nekkee ci biir mu ne feneen maanaam wuute ak ñoom aw doxalin nga xam ne li ko benn naar di wax ne ko ala arbaxin addamanta fi sama nisiba alal ilmi wal alal ilmi wal wal ala alal ilmi wa taxlimi wa zuhdi wa nuski jaamu yàlla jàng jàngale ak liggéey ak du dëddu àdduna ci la nga xam Sëñ Tuubaa bi muy wootee dafa am ndigal moom moo am ndigal xam nga dañ ne woote jëm ci yàlla yomb na mais ndigal lay jafe moom nag yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko jox ndigalul na ko yàlla sa boroom ne rabbi asxaabaka wooteel ñi nga jamonoonteel ndax waxat an yéen aka la mu jaddidan li haadal ji yàlla ko tànn nome ko def ko muy mu jëddit bi war a yeesal jamonoom moo tax na mu ne yàlla digal na ma ma leeral ñu ne maay wéeruwaay bi maay waay bi ku bëgg jàmmi àdduna ak àlaxir na ñëw ci man loolu nag bi mu amee léegi nag kenn day ñëw sëñ Babacar day ñëw gis sëñ bi mu won ko yàlla ndax yàlla kese ci la woote daa ilallahi jàlla fal mujibi lahu wala te nag dañuy wax ne boo taalee taalub diine ku liw diine day ñëw gis nga benn jëneer bu jollee njéeréer yi gunóor yi dañuy seen làmp yi daw wuti ko bi sëñ bi defee noonu nag mbooleem ko yoroon dara te xam ne borom jamono ngi ñëw da nga yëg ne kii la moo waral ñii bi di ñëw ay muqaddam lañu ñii bi di ñëw ay walliyu lañ ñii aarifuuna billaahi yi ci lañ bokk ñii am daraje borom xam-xam yoo xam ne nii jeexal nañ mboolem feggu yi waaye xam nañ ne kii moom jamono nii ñu daal di ñëw fekk moom def na déclaration ca Mbàkke Kajoor waaye leer gi yàlla tabal na ko ci biir xol ñooñu ñii am na ñoo xam ne information bi ñu am ngelaw lee leen ko jox ñii information bi am ay bàyyi maa leen ko jox ñenn ñi yonent bi alayhi salaatu salaam moo leen wax loolu parce que Cheikh Issa Dieng yonent bi la gént mu jël weenu nday jooram leer ko mu gis leer gi ne caw ba ci baaraamu déyu Cheikh Ahmadou Bamba sëñ Ahmadou Diop pax aw nagade ko kii moom jamono mooy Ahmadou Bamba sëñ Aliou Touré jaww jee ko daan tiim naan ko Ahmadou la moom Ahmadou la moom. kon day mel ni ku nekk am na loola loola wan ne nangam la demee noonu. Euh, seriñ tuba ñaata cheikh yow si xayma moom la am su xam nga le nombre exact. waaw mënu ma takk ndax da ngay dégg ñu ne trois cent treize nangam maa ngi ciy gëstu di ci liggéey ndax maa ngi ciy bind di ci dajale téere bu tudd Ar-Rijaal Hawlal Xadiim mag ñi nga xam ne ñoo toppoon Serigne Touba ndax cheikh yi dafa bari xam nga dafa am ñu siiw ñoo xam ne dañoo siiw am ñoo xam ne siiwuñ ndax waxtu nekk. nga génn ci mag ñoo xam ne ni xamoo leen woon moo tax mënuma xam nag lim bi ne ñii la parce que li problème bi nga xam lim bi ne nii lay demee ci man mooy fi ne ñi ni jàpp ne mën nañoo jëkk seex jaayante ndax léegi rek ma gis ñoo xam ne dañ leen di bind ci cours bu njëkk bi ci quarante yu jëkk yi te ñoom bi ñuy bi ñooñu bi ñu leen fi bind bi sëñ bi woote mu ngi tolloog ñoom ñuy feeñ jamono am na ci ñoo xam ne it dem nañ ba am benn âge bi te taxaguloon ñu Cheikh am ñoo xam dañoo teel a Cheikh xam nga ku mel ni maam Cheikh Anta Gaal nga xam ne ci dix huit ans dix neuf ans ci la Cheikh Cheikh Ibrahima Fall ci trente ci la ko sëñ bi Cheikhal am ñoo xam ne diire nañ lu mat cinquante ans ci kanam sëñ bi léegi am na mooy Cheikh gi nag mooy baatu seex bi mooy ngërëmul yàlla ngërëmul yàlla lay doon ngërëm li mu lay gërëm nag mooy indi barke bi indi mbooloo mi bu la gërëmee tey yow rek yaa nekkoon sa kër yaa yoroon sa benn fas di bay mu gërëm la mbooloo jaayante yow tey benn tool bi nga doon mën a bay dangay mën a bay tool bu ko ëpp àndaat sëñ bi di ñëw te sëñ bi léeg-léeg mu mu jëlaat ci biir ñi ngi àndal seexalaat leen boole la ak ñoom. Euh, sëñ Tuubaa ku mu ku njëkk seexal ak kañ la mujj seexal. waaw xam nga dañuy wax ne maam Cheikh Anta Gaawaan moom moo jëkk seex ci yoon wi ndax maam Cheikh Anta moom la jëkk a may ab dëkk ci mille huit cent quatre vingt wala quatre vingt la. muy mille trois cent mille trois cent six bi mu sancee Daaru ba def fa ñaari at la jël dëkk bi may ko maam Cheikh Anta Gaawaan ba noppi may ko mbooloo mi te uur bi njëkk a waaj kon bi muy bi mu ñëwee eh, Touba nag seexal mbooloo mbooloo mu bari waaye maam Cheikh Anta Gaawaan moom dañuy wax ne moo njëkk a waaj am na ñuy wax sax ne moo waral ku sëñ bi seexal ñu ne seexal nañ ko maanaam seex antal nañ ko moo ni ko sëñ bi def seexal nañ ko wax nañ ne moom moom moom lañ moom lañ njëkk a seexal bu ko defee it eh, ñi seexal. daf may xaw a kii tuuti parce que bu dee mujj koo liggéeyal la wala mujj am ngërëm ñooñu dafa am ñoo xam day xaw a bari ndax fi ne tey ku mel ne sëñ Rijaal Seck ku mel ne Cheikh Madiba Silla ku mel nangam nangam ñooñu dañuy nekk mag ñoo xam ne eh, ndax fi ne bu dee sëñ Rijaal day mel ni ak Cheikh Cheikh Issa Diène moom bu dee liggéeyal ku ci liggéeyu loxo moom Cheikh Issa Diène ku mujj def moom moom bokk na ci seex yu jëkk yi ndax Cheikh Issa moom bi muy seex moom sëñ bi demagul ci géej gi. Euh, loolu tubaab naan confident maanaam ki nga gën a déglu ki ngay dénk say secret euh, sëñ tubaa kan la joxoon confiance am maanaam sax xëy na ñàkkul confiance si kenn mais ki nga xamante ni maanaam chaque fois mi ngi si kóoram ñu ngi toog di waxtaan wala mu koy euh, maanaam dénk yenn yi kàddu yeeg yooyu wala yenn secret yi. waaw ah, loolu moom lu leer la mooy maam Thierno borom daaru borom lu daaru maxti moom moo nekkoon aminu sirri yi xam nga na sëñ bi. meloon comme état ñii dañoo nekk ministre nangam ñii nekk ministre nangam ñii nekk ministre nangam tey jii lu ma sa jëm ci xaside yi da koy féetale Cheikh Massamba. am na yenn relation yoo xam ne maam Cheikh Anta bu dee ci wàllu tubaab bi sëñ Balla Coro am na ci yoo xam ne sëñ ma am na yoo xam ne Cheikh am na yoo xam ne Cheikh Issa loolu mais nag bu dee nag dafa jël nag njabootam jël lépp moom da koo dénkoon maam Thierno nga xam ne moo nekkoon aminu sirrihim gis nga sëñ bi moo ñaan yàlla mu boole ko ku mel moom borom daarul maxti fu mu jëmit mooy ñoo ànd ñaari baat yi sëñ Tuubaa moo ko wax ci moom lam yu xaalif nii lam yu faarix nii mës sa tàggoog man mës sa juyoog man bi muy dem ci géej gi moom la batale njaboot gi li sëriñ Saliou wax sëñ Basiir Abdul Xuduus dégg naa mu ne sëñ Saliou nee na nee na ko bis ci làmmiñam euh, sëñ bi de bi muy dem ci géej gi léppam suñu bàyyi ceerno la ko dénkoon kon moom moom la doyloo woon nag nekkoon na Aminu Chérif doonoon koo xam ne ku mu wóolu la woon ci wàllu boppam wàllu njabootam wàllu doxalinam. Euh, sëriñ Gana Messere dañuy ñëw ci cinq minutes nag euh, xam naa ni yéen xam ngeen synthèse mën ngeen tënk nga ñëwal ñu si yoonu géej bi sabab bi ak état bi ak bi sëñ bi dellu see cinq minutes. waaw loolu sabab bi mooy rek. sababu xaybati an allah arada an anala minhu jaaha an akuna shafian li xaw mi an akuna xaadiman fi daw mi mooy mooy leer le motif de mon départ en exil au et la volonté que Dieu a eux d'élever mon rang kon sababu xaybeti an allah araada an anala minu dia waan akuna chafian li xaw mi akuna xaadiman fi daw mi nga xam ne day nekk nag le serviteur intérieur du prophète Mohammed mooy yooyu mooy sabab bi moom li mu waxal boppam mooy yàlla moo na maam ci moom daraja ju kawe ma nekk ko ramm sama xeet diirub jamono nag ma nekk xaadim rasul kon loolu moom moom mooy sabab moom am na sababu zahir sababu baatin tubaab bi dañoo jàppoon ni kii dafa ñëw pour occuper adduna dafa ñëwoon pour nangam sëñ bi loolu tax ko woon a ñëw yeesal diine ko taxoon a ñëw ak dagg buumi jàmm ak bañ ñoteel ruuxale yi jaxase ko ak tubaab bi. amoon na jamono jooju kon. <laughs> mais yu bari ruuxale sëñ bi boo doon gëstu bari na ñoo xam duutu leen tudd dafa bari. ay nit ñu ay nit ñu ñuul ay ay ay ñu bokk si ñun. lu jaxase sëñ bi loolu du jeex ba cent 1912 bi mu ñëwee njaareem rek rapport yi dafa bari rapport loo andi woon mbirum fara euh, farak respect ah moo tax sëñ bi dañ ko war a gëstu moo tax bari na ñuy wax ñoo xam ne li ñuy wax dese nañ koo xam bu baax a ay noon yu dëgër ñoo fi ñoo ñoo fi nekkoon jaxase ko ah kalaame ko ah bañ ko jaxasee te moom booba sababu sayir la mais sëñ bi am na lu mu bëgg sëñ bi booba bi mu sañcee Mbàkke Bari euh, ci mois de mars def mars avril juin ci mois de juillet góor gouverneur général dafa convoqué AOF muy Afrique occidentale française boobu juróom-ñetti réew la woon convocation bu boolewul ci sëñ Touba te teewul ña demoon dañ ne gouverneur sëñ bi dalaa yepp dalaa xeeb faalewu la am na si ñu waxoon lool moo waral mois de août mu bind lettre jox ko maam bi génne Mbàkke Bari fekk na 9 août tubaab bi bind rapport kenn mujjee jàpp ca waalo fa lañ ko téye mais 10 août lañ woon ordre war a jëlee sëñ Tuubaa Mbàkke Bari bis boobu moo tombé mu jot ndigal lu bàyyi ko ci Rasulullah loolu moo waral mu départ 10 août di war a doon fukki fan ak juróom-ñett ci safar muy bis bi ñuy màggal dajeeg ñoom jeewal. jeewal mi ngi daje ñoom ci yoor yoor bi boo 11h jëm jàpp 10h 11h fa la yendu fa la fanaan fa la jullee julleem yu yéeme yooyu ahlu badrin fekk ko fa mu jóge fa ñëw kokki bi mu jógee kokki bi guddi gii xaaj di sori ci la jóg ñëw Louga Louga la ñëw yendu ba takku takkusaan mu door a dugg saxaar ñëw ndar le 12 la ñëw ndar def fa 38 jours 38 jours la def ndar cinq 5 cinq 5 le 5 septembre moo nekkoon jour 6 mois bi. fa lañ ko boole gaynde gi moom moo ko nettali wa man takun bi rasulillahi nusratuhu foofee lañ ko boole gaynde gi li ko indi mooy booba moo indi numéro 4 sëñ dégg déggagul nga 5 mais yaa ngi gëstu mais déggagoo benn benn chef religieux bu nu adressé titré ko ne numéro 5 wala numéro 7 wala 24 wala 62 mais kon lan mooy koosu sëñ Tuba nekk numéro 4 dana ne 6 dana ne 7 mais booba tubaab yi bi ñu leen dajalee ci convocation bu njëkk ba dañ leen a waxoon da ngeen di bàyyi joxe asaka tey fay lemp gaynde gi waaloo lañ ko jëlee woon gaynde gu xiif léegi nag li indi numéro 4 mooy ñett ñoo ñu jëkk dugal ci kaaf gi gaynde gi jëfandikoo leen sëñ Tuubaa nee na bu ma seetaanee ñu jeex moo tax mu ñëw taxaw fa ñuy wootee kii wootee ñu mun ne ko teg ma ci maa ci topp loolu moo indi numéro 4 mu nekk numéro 4 moom Cheikh Amadou Bab 38 jours yi bañ ko attee le 5 téye nañ ko fa ba le 18 la tonto góornóor tontoom yu rëy ak ya ci xew le 18 boobu après ñu jële fi sëñ bi nag yóbbu ko Ndakaaru le 21 septembre nag di samedi la de la décollé jaar Conakry bi mu ñëw Grand Bassam moo nekk la le le trois noonu la jaaree ci béréb yi ñuy jaar ba ñëw Libreville ñëw Mayomba ñëw na nga xam ne diiran yoon wi yëpp ak liggéey bi mu ngi nekk sept ans yu teg quelques mois. moom la sëñ Tuubaa def yoo xam ne mel moom képp ba muy demit xaribun la daa jundil ayda wa silaahuhu midaadun wa aqlaamun turayisu bi shukri xarima ak daa képp la sëñ Tuubaa yoroon kenn àndut ak moom ku dul yàlla ak rasulullah rafiqi kitabullah wal mustafa nabi wa ashaabuhu fil bahri rek xew na fa ci Gabon ci coono ak fitna ak nattu ak tiis waaye diiraa lañ fa def amul bis bu mës a tiim waxtu wu nekk day jaamu boroomam di ko wétal ba mu fa jógee nag 11 novembre la ñëw ci réew mi mais la 11 bi mu fi ñëwee yàggul parce que 7 mois la fi defaat jaxase yi amaat rapport bi génnaat nga xam ne ci mois de juin boo xam ne lu doy waar la ah, moo waral bi këru Daaru Manaan gi lakkee sëñ bi di yeesal la baat kër gi tànke lal yooyu moo indiwaat beneen problème parce que dañu jàpp ne fetal la. jàpp ne day préparer guerre dégg nga ba mu leen tontu yaa jumlatan xad dallazu bi dalalihim man lam yakul waladun lahu aw walidun axrajtumuni naatiqiina bi annanii abdun ilaahi wa annanii mujaahidun wa zannantum wax na ne comme ñoom jàppoon nañu ay gànnaay la yor ca la demee gànnaar ñeenti at lu ne xew fa diggante sarsaara ginnaaw jaraari fu ne am fa ba mujj rek hamdi wa shukri liman kulli bihi saara lahu ridan doona soxti indi sarsaara yóbbu ko ci en 1907 mu def fa cinq yoo xam ne jàng na fa junni kaamil sanc fa ñaari dëkk ñaari kër muy Daaru Rahman ak Daaru Xudus fa ko door a jël nag indi ko en 1912 mu ñëw nag boqaatul mbaarak muy njeereem foofee la sax ci résidence surveillée ba 1927 mu door a ñëw Touba. jërëjëf loolu loolu leer na macha allah tubaarkàlla maintenant dañuy ñëw sax euh, si euh, Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall seen gisee ak diggante bi relation bi. waaw loolu moom Cheikh Ibrahima Fall xam nga. dafa am tawféex ndax benn bi sëñ Moussa Ka nee na mas nay xibaar ak jébbaloom bay wax ne yàlla mi ko moom moo ne ko Bàmba moo la moom raasi ko jox ko say fexe kon yàlla moom moo joxañ sëñ si sëñ Tuubaa am na ko bindit id qaala rabbuka aslim xumta murtaxila illa xadim bila kibir wala Cheikh Ibra euh, suñ boroom daf ko may tawféex yi ak jox ko mu ñëw d'annoncer sëñ bi ci nan lañ ko war a toppee parce que sëñ bi mënta wax nii lañ may def mënta wax nii lañ may topp xam nga missionnaire boo xam dafa am mession pour ñëw def dara xam nga fi ne nit ñi ba léegi dañoo umpale Cheikh Ibrahima fal Cheikh Ibrahima Fall bu dee jaamu yàlla moo daqoon a jaamu yàlla gaay yi dàqoon leen a julli dàqoon leen woor ba muy jaamu yàlla ñii mënuñoo jaamu yàlla mais léegi dañ ko jox nag euh, liggéey boo xam ne mooy wan bi kuntu aabidan lillahi jalla ala maanaam xibaadaam jaamu yàlla Cheikh Ibrahima mooy liggéeyal sëñ Tuubaa tax bi muy wër sëñ bi daana dem ci dëkk yoo xam ne daana fa naafila moom Cheikh la kaamilu alxuraan bi lay la benn tànk bi lay taxawee ba xaaj bu jëkk bi wàcc mu taxawee benn ba fajar jot mi ngi gisee sëñ Tuubaa ci Mbakke Kajoor sëñ aadama Guèye la gis dafa ñëw dëkk bu ñuy siin lay kan moom bi la siin lay kan la ñëw julli fa ca armeel ya lëf feeñu ko nag ki ngay seet bu ne woon ci kër borndu bu njëkk baa nga Badar Guèye mu ñëw Badar Guèye ñëw tey ba naqaar fekk sëñ Tuubaa yónni sëñ Adama Guèye sëñ Maxtaar Touré ba ko gisee nag xeetu Sëñ Tuubaa xeeñ ko mu ne ginnaaw jigéen bu wanee lor koo gis xam ne am na lu mu àndal sakkaa ma ko yor leeru yàlla kii de bu dul ki may seet it fa mu fa la jóge coor yi ko Sëñ woon coor yooyu la Seex Ibra Faal jël yanu ko bi ñuy dugg suuf suñu bàkkaajoo sëñ Adama ngay jël ko foofee la duggee ci environnement bi wër sëñ bi rek dafa luf mel ni ko paralysé mën a tëjóg sëñ Adama bi mu ñëwee bi ba nuyoo moom mu ne sëñ bi ne ko amoo koo àndal mu ne ko am na ndongo lu ma àndal mu ne ko demal nga woy ko nee na mu ruuf loxoom ci mbaggum Cheikh ma Fall indi ko muy sëñ bi ñu jàkkaarloo ñoom ñaar sëñ bee ko laaj ne ko ndongo luy sa bëgg a ko egg ci yàlla sëñ bi ne ko wa anna haada siraati mustaqiman fattabi'uhu lii mooy yoon wi jaar leen ci te jubal mu ne ko damaa topp tànku yàlla ba mu soso kër sëñ Bachirou nee na sëñ Ibrahima Fall moo ko nettali ne ma xakkaa xale kabir la wax bi jàmmaarloo ñoom ñaar sëñ Tuubaa da ne ko man de bi may ñëw àdduna moo fi fekkutoon dara lu may jant bi ak asamaan si xam ne daana tiim rasulullah ak suuf si daana ci dox danaa ko lëggéeyal ba am ci li may wut mu moom it mu ne ko may ki may seet bu ma ko fekkutoon adduna te gis bàmmeelam danaa sax fa bàmmeel ba di ko lëggéeyal di ko lëggéeyal ba am ngërëm ca la jaayanteeg moom lëggéeyal ko diiru fan ñetti at yoo xam ne tërbiyeelu diggante Mbàkke Kajoor ak Mbàkke Mbàkke Bawol Daaru Salaam la jëkk amee ngërëmul yàlla Sëñ Tuubaa gërëm ko tafal koy garaat may ko melo yu rëy yi nga xam ne moo nekk ci moom jaajëf euh, léegi Sëñ Tuubaa taalibe war a mel ak kan mooy taalibe taalibe murit waaw murit moom sëñ bee ko jàngale ci ñaari façon dafa def loo xam ne pratique la tudd def loo xam ne tawri la tudd muy nazariya ak tatbiqiya tey jii sëñ bi dafa bind ni murit war a mel ba noppi defar murit yu mel noonu nga xam ne boo mënta jàng te xool seenu doxin xam ne mooy meloo Sëriñ Tuubaa dafa wax ne dafa am ay wërtiif yu jëkk war a jëkk ci murit bi engagé awwalu waajibin alal muridi tahsilu zaadahu min tawxiid dafa am ay waajibaat wërtiif ay droit yu war ci murit bi di jiitu mooy mu am xam-xamu tawxiid mooy xam na yàlla buur la yàlla kenn la yàlla mooy yàlla xam loolu dàqantule wax yi gars ay xam kenn amul yenn jot yooyu nit ñi sëñ Tuubaa mënee su ko dund di bokkaale bu xaw ma na ngay dundantu sëñ Tuubaa moo tax damay laabiire yenn waxkat yi nañ jéggi boobu paas ki gëm sëñ Tuubaa di ko dund jéggi na bokkaale ndax sëñ bi moom jàngal nañu lan kan mooy yàlla wax na nañu ko kenn wax lii boo paree nga xam sa faratay jëmm mooy xam njàpp xam koor xam natt asaka xam nangam nangam nangam sëñ bi dala koo jàngal boo paree ci yooyee nag bul berew ndax am na ñoo xam ne mun amee loolu ba noppi du ñu wuti sëriñ te teew dañ naan murid la sëñ bi ne déedéet wa baaxal yasluk in raamal a yaddi mukammil yax fu rasul ay melo wax ne murid moom day nekk mu'min nekk muslim nekk muhsin da nekk ab julit nekk ku gëm yàlla nekk kuy rafetal te doo bëgg lu may ngërëmul yàlla foo mën a jëm ndax idil muridu laa yuridu abada xayrul rahmaani is xasana loo foo mën a jëm ngërëmul yàlla ngay sàkk ngërëmul yàlla ngay bëgg bu boobaa it yow murid bi am na ñeenti melo yoo xam ne faw mu daje ci yow nga door a yegg ci murid saadix mooy bëgg sëñ bi tamit dëgg bëgg sëñ bi tamit dëgg jëfe ndigalu sëñ bi bàyyi diingat bàyyee sa bopp sëñ bi bëgg sëñ bi tamit dëgg dox fil mahabba imtithaalul awamir wa jitnaa bi nawaahi jëfe ndigal waaye ba ca toppit mooy tarkul i'tiraad ab murit du gaaral mooy du dingat mooy limay may di wax gaañ sëñ bi daa waroona sëñ bi warutoona lu tax sëñ bi lépp ak sëñ bee murit laa waaye sëñ bee cipputu loolu day yàq ak murit ak imstaalu ay suwarat ndigal foo ko déggee ndigal amul science gis nga fasaale bokku ci ak ëskey maa ngi sa ginnaaw jëwriñ dana baax bul ma fat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 bu boobaa it bi ki bëgg a yeggit sëñ Tuubaa ne faaw mu yóbbaloo ñett ñam bi muy jëfandikoo mooy tudd yàlla am mu day sikkar mooy jàng alxuraan mooy jàng xasida tudd yàlla xayru taami li muridi saliki dawaamu dikri sil kiraaj malik ba ca toppit mooy nga am ab yóbbal yóbbalub murit mooy ragal yàlla ragal yàlla nag ñaari tànk la sëñ Babacar mooy lim la digal nga def ko lim nga bàyyi ko ba ca topp mooy nga am nag nee na kuy tukki ku nekk dana yor gànnaay gànnaay yu murit bi jëm ci yàlla mooy sàmm ab murit du dóor am murit du business doo la neex def di joggi ci kaw nit ñi nangam déedéet murit dafa war a tege ci yoon dama koy faral di misaal naan sëñ sëñ Cheikhu Bousso taaw sëñ Bousso bi mësta naan soow meew daw ko naan ndax parce que nee na nag wi ñu rattee meew mi la xamul lekk nam ruuram déet dugg na ci toolu jàmboor comme loolu wóoru ko moom kon moom day man léegi noonu nag loo loola neex lekk la neex naan loola neex jëfandikoo fu la neex dugg loola neex wax te boo noppee ne sëñ Tuubaa amul morom loolu du melawkaanu ab murit sëñ Bay Jaxate ne murit dëgg yombul la yombay nga wax ne murit dëgg laa tudd ab murit murit day joxe addi tey siyaare sëñ Masamba Diop Samb ne ne siyaare ju joxe dara mi ngi mel ni ko dem ca teen ba te yóbbu ab goj fooy ab murit addiye mooy ab murit day joxe addiye mooy li sëñ Bay Musaa Ka wax amaana ku ñu naan muridun saadixun te fekk kooku mooy muridun saadixun day bay di lekk di joxe hidaaya kooku mooy murit bi sàcc woon na murit mu gaaw de Mbàkke Bàll xam ne mos di woote yàlla mag ñi ku ci amoon milliard amut mag ñi menn mag mu amoon milliard ci jamono yi Sëñ Tuubaa mais benn projet Sëñ Tuubaa ma sa taxaw amul diiran sëñ bi mi ngi fi yu may njëriñ ci kanamam la sopte ñaar fukk juróom-ñett lañ doon laaj lu Sëñ Tuubaa ma sa bëgg moom raay bi xoolal bi ñu koy rëcc jamono yi Cheikh Mamadou Moustapha xoolal jumaa na léegi ñaata milliard tey la gën a bari mais tey la sànc yi gën a taxaw parce que coow li moo gën a bari jëf ji léegi kenn ku ne bëgg a doonu sëriñ léegi ay taalibe sax la ñu bari jéematu def seen bopp léegi ñu sama classe gi yëpp mooy waxtaan ab sëriñ ngay bëgg a doon booy jàng nga bëgg a doon sëriñ sëriñ léegi nit ñi jàpp ne ak sëriñ mooy jël kol teg sa baat di tenk naag doon nangoo liggéey mag ñi dañ daan liggéey ku ci mas a doon ab seex sanc nga ab dëkk wut ay daara di liggéey léegi bu ñëpp ferantu laa kenn ku nekk bëgg ne dangay ngay dundali fi bàyyi ko mais kañ ngay am loo loo jariñoo ak murit nungoo liggéey la xitma ndax sëñ Tuubaa nee na ab murit mooy fajjitey sëriñam bil bas liwal xitma di ko liggéeyal ak di ko jox alalam. Mm-hmm. loolu bokk na ci comportement yi. dañuy euh, faral di dégg ñu naan murit réew taax yeeg murit yu bees yeeg yooyu en fait euh, terme yooyu noonu noo koy gisee. waaw ah, murit moom bañ ko dugalee ci moderniser ko la yàqu xam nga murit moom kenn du ko moderniser xoolal tey jii gaynde yee nekk ca parc an gaynde ko ku mas a baa nga gis ko daw waaye bañ ko tàmbalee seetaan dafay téeméer lañ wàcc ak murit bi ñu ko tàmbalee di ko tekki dañ ko war a këlki nag ak murit la war a mel booba lañ tàmbali dugal beneen problème waaye nag ba léegi sëñ Babacar na nga xam ne bépp murit bu mel ni sëñ bi bëgg bët bu set li sëñ bi joxe yaa ngi jot moo xam ci zahir moo xam ci batin parce que da ngay branché ndax boo ko bu la digalee defal saa yoo ko defee yegg kon noonu la war a mel mais léegi këlkin yi moo bari soxna Fadija daana wax ne ab sëriñ ab seetu la ab seetu kenn du xees mu lay ñuulal mais léegi nit ñi xamatuñ ab sëriñ xamoo lu ñu xam ak gaañanoo diw sama copain la falaa reere biig sëñ bi ñoo bokk reer ma jox mbub mi oto ma wàcce am ñoo xam ne sëñ Madiba Sylla mi dugg na oto sëñ Cheikh te moo ko woolu ju woon ca siin keroog bi mu ñëwee daa jël fanweeri junni jéggaloo ko oto sëñ bi te nanguut a toog ci bank yi daa càpp ci diggante bi xooloon noonu nag léegi damay ne ci kanam fi sëñ bi toog laay toog génne sama loxo langal di wane ne noo oto sëñ bi ci laa nekkoon nanga ma nang ah borom daalul moxti sëñ Moussa Ka moo ko nett ci wasiyatu niswaan nee na am koy déqil am ko jël seetal ak borom daaru gi seetal gi nee ci wana yi borom daaru na dab leen ko bu duggee ci wana yi mel na ni ku jël ndeyam dugg moom ci mu néeg def ci definu bàyyam léegi xoole yow lalub sëñ bi ci ngay toog lëng soxla sëñ bi doomi sëñ bi nga kottante daanu suuf ku la wax nga sëñ bi sama xarit la waa këram ñëpp ñoo kii waaw wala nga ñemee sax bay wax soxna sëñ bi ah yow de mm, yaa ko yor ak sëñ bi nangama nang murit du noonu murit pas-pas la murit jëf la murit gëm-gëm la murit du ay caaxaan ida a al murid al intifaa yaxtaqidu bi anna cheikhu wasitu baynahu bayna rabbi ab murit bu bëggee jariñu lay xam ne sëriñ ma dox diggante mag borom hmm. mais murit ci taax mooy lan sëriñu taax daa am ah? wala àjjanay waa taax ak waa kaw ga daa am déedéet jubal moo fi nekk ak tege ci yoon Sëriñ Tuubaa nag moo ne man tawajjaha ila rahmaani rahim rafaqnaahu wa man tawajjaha ila rahmaani rahim shaytaan rajim faran ku jëm ci yàlla boole woo ci dara jërul gersu maa yow noo am saa yoo jëmee ci yàlla boole ci saytaane tàggoo nañ ma ak kon ku bëgg a moderniser yi fii du sotti. ja euh, jàppoon ni technologie bees yeeg yooyu xarañ yeeg ay whatsapp ak facebook yooyu en fait euh, euh, demul ba commencé soppar ñi melokaanu yenn nit ñi parce que di nga bëgg doon lii mu di sàddeex waaye parfois yenn tentative moo lay yàqal yooyu amul benn maanaam jeexintal si si si si ñenn ñi ñu ngi doxal seen wàllu murit. waa ah, xam nga daal murit yu ñoroogut nag murit bu ñoroogut nag la yooyu di daw Euh, yëfi technologie bi mënees na cee jariñoo parce que man am man man ngaa jàng-njàng moo xam ne fi ne tey man ngaa bañ a génn mais fi nga nekk nga koy jànge mais def man nga jàng di liggéey tey nga soxla benn matériel moo xam ci Chine moo xam ci Dubaï mais nga jot ci mais nga soxla benn téere tey boo xam ne waroon nga ko wóor lu yàgg dem ci almaktabatu shamila fekk fa téere ba nga jël ko di jàng tey jii man kat maa ngi am téere ma bëgg a jàng mais aw ma jot léegi sëñ bi na ma ko defal ay vocal sëñ bi defal la ko jàng téere bi sa njariñ la mais dañ ko deful dañ ko jël ba noppi dof yi ci wërta dugg dugg ci foto ay mbaam di am waayeeg ah dem ci armée lee di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko foto di sànni nit ñe te defantu am waateku walam tax bi lu loxu loolu Abba Issa wax da ngeen a suul seen i néew te waaru woo leen jal bii bu la wóoree ne kii fi tëdd bu ëllëgee yaa fi tëdd da nga tal leneen lu dëpp ko appareil di foto di da ñàkk kersa da nga gis sax bàmmeelu kilifa ju di ko foto di génne ci biti hmm? léegi kenn ku nekk gis koo xam ne du nelaw guddi fukki groupe ak juróom-benn lay bokk te bokkut ci daayira fu ne mu wakaal la maa ngi nuyu ko ci bunt bi sama waa nangam a nangam ku ne nga demandé ko ku ne nga accepté ko ku ne nga rejeté ko te li gën a yéeme da nga gis murid boo xam ne foo ko fekk mi ngi yor connexion waaye du joxe cotisation carte neb kër sëriñam du matal daayira fi waaye ligne bi moom bët bu set dana ko jënd parce que da nga gis koo xam ne xoolal sëñ bi sëñ Babacar sëñ Tuubaa dana woon jamono ngi ñëw ñett dana fi jëlee ñett xaalis dana fi jëlee iman xaalis dana ko fi jëlee islaam tubaab bi ihsaan jigéen gis nga islam tubaab bi dana ko fi jële moo biir da nga gis koo xam dana dem ci màggal du julli takkusaan du julli tisbaar mais du ko jaaxal mais bu portable am fayee day mel ni ko dof sa waay noonu tey dama nekkul tey xaw ma lu xew ci réew mi réseau bi doxul sa waay dama amul ligne sa waay condition mel na ku kon te julli woo joxe waxtu yàlla léegi dem nañ ba jël loolu jiital ko benn danga gis ndaw loo xam ne téléphone bi 300000 200 nangam 1000 lay am te amul néeg amutum néeg léegi ana sa réalisation fan nga jëm. mais bu njëkk nga nga ne ci kër gi yor ordonnance ordonnance soo wuy jur ne fi doo ko jaay hmm? mais wuyu wuyu la boo fa yeggee yegg nga fa kenn nga tuddee yor léegi téléphone simple lu baax la lu la mën a jariñ la lu la mën a yokku la am na ci ñoo xam ne doon li ko wul ci seen diine foog caaxaan rek lañ ci lañ ciy def lañ yan kenn xamul lu mu doon lañ cay waxante kenn ku ma ñenn ñi jubluwuñ ci lu may képp nit ak tas ko léegi dem nañ ba léegi kun bëgg weer ci lañ lay weer doxeetun lan moo gën a bon man satara muminan fi dunya satarahu laa yowmal xiyaama ku suturaal ab jullit adduna yàlla suturaal léegi xàmmeetuñ ci kilifa xam wakaali jàmboor dañ koy jël di ko envoyé groupe whatsapp bi di filmer ay nit di leen jéem a kidnappé di jàpp ay nit di leen téye ci ay vidéo wax ju nekk nga yow nga ne ab jullit nga ba noppi te yow bëggoolu mooy sa mbokkum jullit weeru loolu moo xew ci adduna bi te loolu dara waralu ko lu may lii ñëw tey bari na kilifa ko yëpp yóbboo ko woon ko daan seen mu romb la simplement ne këram yóbboo ko léegi réseaux sociaux yi tax na ñu ngi koy yàpp parce que ñu ngi commentaire ñu ngi saaga ñu ngi wax lu ñaaw koo wax ñu ne lu normal jigéen ñaa ngi fii di vocal seen jiw ma wax ndàngam ndàngam ndàngam wax ndàngam li gën a metti mooy nit ñi ñoo war a xam loolu bu dee jumtukaayu liggéey nga jàppe ko comme sa atelier bu ca liggéey ak farata jotee nga def ko ca bu noppee nga bàyyi. jërëjëf sëñ Gana lu ñëw nag si état bu mujj bi euh, Serigne Touba ak njabootam loo loo ci mën a wax maanaam parce que damay di dégg ah, en fait euh, bon xaw ma ndax wér na wala wérul mais tey di nga nu ko leeral ñun sëñ bi dana wax na bu demee ba sama doom yi newatuñ fi ngeen topp sama xasida yi loolu lu wér la ak euh, murid nu war a toppee ak kilifam te kilifa yooyu weesuwul sët yi ak xam nga sëñ yoon yoonu toppante la euh, sëñ Touba moom dafi du jóg ndax ab xayta taati maanaam tey yàlla dama fee desal bu noppi boolem fi may léegi ndax université 37 milliards amoon na jamono sëñ Saliou université 37 milliards amoon na jamono sëñ Touba. léegi bu ne woon léegi nag nan yem foofa kon yokk jumaa ji ndax dana am ndax Masalik amoon na jamonoy doomi Sëñ Tuba ndax ñaari sooroor yi amoon na jamonoy doomi yëfi Sëñ Tuba continue bi la continuité la day continuer continuité la du dakk ndax barkeem la yàlla barkeel mu sax diirub suñ borom a ngi fi topp ab sëriñ it Sëñ Tuba moo wax ne waman yurid li rabbi usuli qabla sayrihi sëñ Tuubaa nee na képp koo xam ne bëgg naa egg ci yàlla nam mu caa jëm balaa jóg na wutub sëriñ ndax fa kullu man azima cheikhan murshida fa cheikhu cheytaan ay soxasala sëñ Tuubaa nee na ku ñàkk ab sëriñ saytaane sa mais nit moo mënta dem te amoo wasila da nga war a am wasila wu lay womat koo xam da lay womat sëñ Tuubaa nee na ku ñàkk wasila mi ngi xuus ci géejug alkande ndax saytaane koy womat ak bakkan ak adduna ak bànneex mais nag wasila woowu mooy kan mooy koo xam ne ci yàlla la jëm ci yàlla lay yóbbe wa wajaba taaxata man yax fa rasu sala alayhi wa suul mro asa di sil kaman sëñ Tuubaa nee na ñi teg seen tànk ca yoon wala ñu war a topp tey jii ba àdduna tukki kon bu fekkee loolu am durriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil Mustafa tajtahidu sëñ Tuubaa du ñaan sëriñ yu yeesalaat sunna su Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu doon dafay yem rek fa lay yem ah wahab lanaa durriyatan tuddiimu al amala saaliha ya xadim nang ma may njaboot gu baax sët yu baax yu fi des sëtam yi tey xoolal liñ dolli ci yoon xoolal tisaareel àdduna bi tey foo xoolal tey jii nan la ñaata kër sëñ Tuubaa ñoo am ci adduna bi tey jii ñaata murit ñoo dolli ko dimension bi màggal gi am tey jii gaa yi nañ yéegale dimension spirituelle bu Cheikh Amadou Bamba lan moo xew léegi ci jamono lu ko def njabootam gii sëñ Tuubaa bi bi muy dem ci géej gi Cheikh Moustapha la fi sëñ Fallou sëñ Baar njaboot gi juróom-ñeenti amoon tey jii ñaata la sëñ Tuubaa naa lu mu bëggoon defal ko demal daaray kaamil ngi fi jumaa jàng Tuubaa ngi fi ñu titre foncé ko Tuubaa mel noo xam ne benn dëkk melu ni lu jóg jëm Tuubaa lu ko seere njabootam gi njabootu Serigne Touba ñoo taxawu tànki Serigne Touba njabootu Serigne Touba gi ñoo donn Serigne Touba ndax Serigne Touba moo ne dañ ñemee donn ci liggéeyal yàlla ak jàng alxuraan ñaata daaraa fi am ñaata mbooloo fi nekk kenn ku nekk ci njabootu Serigne Touba gi boo demee dëkkam fekk fa juma donga yi tërbiyee ko laxasaayu ñuy dimbale nit ñi di leen jàppale waxtu wu nekk foo toll ren bu déwee nee nga gis lu gën a yokk gàcce ngalaama njabootu Serigne Touba gi gàcce ngalaama sëti Serigne Touba yi ñii ñoo man xam ni ñuy wutoo seen maam Seexul Xadiim ba yoonu Mourou Sobel 30 fekk fi yàlla yu metti Masaalikul naan fekk fi jumaa ji sëñ Muntaxa ñëw dóoraat ñu ne xam-xam mu ne université 37 milliards ne ma noppi nag ku dem ma dem ku demul ma dem gis nga yoon wi yenn yi ay lobby la ñi bëgg a dund bëgg karkaral gone yi xamul fu ñu jëm nga bëgg cee am ay procès bëgg cee lijjanti sa bopp moo tax ñuy dal ci kaw njabootu Sëñ Tuubaa geek di wax di gëmal gone yi ne bu leen topp njabootu Sëñ naan leen ab sëriñ amatu feek di gëmal gone yi naan leen yëf yi jeex nag dara du ci dëgg màggalu 2019 gii te day gën a jëm kanam sëñ Tuubaa programme woon na yàgg ne bu demee ba deux mille dix neuf deux mille dix huit deux mille dix neuf ku ñuy wax Cheikh Mahamadul Muntaxa mooy toogee sama jotaay ndax sëñ Tuubaa nee na lu ma bëgg la ma yàlla ñoddi lu ma bëggul yàlla du ma ko indil ba muy ñoddi ne sëñ Muntaxa koy doon programme bépp ci programme Sëriñ Tuubaa la nekk sëñ Tuubaa lañ koy defal sëñ Tuubaa lañ koy jëf loolu sëñ Tuubaa ñaan na ko ba yàlla may ko ko ba noppi bi ma faaxa zanni ma faaxa zanni kullu ma sa njortu may ma lu ko kawe yàlla nangul lii am mooy nan respecté njabootu Serigne Touba gi nan fonk njabootu Serigne Touba gi nan doon ay taalibe te kenn ku ne sa ay bopp doy la ñoom la seen maam demoon géej ñoo liggéeyal Serigne Touba contrekat yi bari nañ lool ak yàqkat ak bukki yi sol mbubbi yoru deri bëy yi nag da ci biir yoon wi bari na koo jàpp ci yoon wi la nekk day defar fekk day yàq ndax jenn dara ji Serigne Touba ñoru ko genn may Serigne Touba ñoru ko benn sagub Serigne Touba ñoru ko boppam dong lay lijjanti fi ne bari na koo seen loo xam la muy dégaase moom lay encaissé bëgg ko bañ topp kenn te bëgg ko topp seeni xol jeex waaye nii njabootu Sëñ Tuubaa gi mel faaw ñuy liggéey di leen jox li may wax ci ndogu yi rek hmm. képp koo xam ne ndogu yi daal neexu la yow yóbbu woo ko yëttuñu ko sa baay waaye bu doon ne yow sëñ bi ñu ko yët mooy sa baay wala sëñ bi mooy sa kilifa dana la neex bu doon yow lañ ko sant nga mën koo def di ko def dana la neex waaye ginnaaw yow yóbbu woo ko te yëtuñu la ko nga ne ci digg bi wëndeelu defoo ci dara looloo koy waral waaye ñi bëgg yoon wi dem xam nañ ne dañuy ami sëriñ di wuyoo Mbàkke ñu waroo njaay njaay ñu waroo wuyoo jóob jóob ñu jan jan ndax sëñ Tuubaa ko def te barke ba fa def dafa jóg kenn ku ne yàgg nga raam ci kanam sa sëriñ mu tufli la say lor dal ci sa kaw bopp nga dem sa aajo faju ku ko xamul yaa ko xamul waaye ñi xam seeni sëriñ xam nañ loolam jërëjëf euh, kooku di Serigne Gana Messere xam naa ñu ngi si cappaandawu émission bi damay ñëw nag si laaj yi ma doon far laaj sama invité yi euh, yow sa jotaay mënoo fa jóge te daanu du fa am jotaay bi fa mu xaw a yéeme loolu macha allah li koy waral mooy li ngay wax dafa spirituel day dugg si xol. maanaam loo si jokkanteel loo xamante ni loolu yéem la si bâche yi si wàllu daanu yeeg yooyu est-ce que si am aussi incident bis kenn ñëw bañ a wala yooyu xam nga gars yi ñu ngi def yooyu dunaa ñu ànd ak seen sago amoo yooyu si ma tasanteel yooyu yooyu. xam naa du ma ko bàyyi xel ndax man nag damay damay bu ma toogee dana dana danaa fexe ba gars yi toog ci côté yi. di ko bàyyi xel. te te te dinaa faral di xool ak si yeeg kii di ko bàyyi xel xaj na léegi-léegi du ñàkk ñoo xam ne sax danañ agsi ci yow mais duñ agsi benn agsi yéen wi parce que yéene rek lay doon daanu yooyu ñuy daanu mooy sëñ Tuubaa ji jóge la koy wax yaay jëkk daanu man ma la yàlla wax wa sama xobban wa tamina maanaam yàlla boo koy nettali seen rongo ñi day sottiku ñu tàggoog seen sago ñii di mbëkk ñii di jooy loolu lépp mi Serigne tubaa jën bëgg rek ko waral parce que bala nga ko mënoon a xam nga wax leen leneen lu dul lool wala nga won leen lu dul Serigne dañ dafay romb jàll loolu nag bâche yi moom xam dafa bari ay ay ay ay yëf ndax ñii daa mën ngaa toog sax ku nekk sa man léegi-léegi sama garde corps yi ñi may sécuriser léegi-léegi ñooy daanu. démb rek ñu ngi ciy nettali benn kii sama ñaari gars yi ma wër kenn ki daanu kenn ki di ko téye mu nar koo dóor ba mu daanu ci taabal ji yooyu yëpp day am moom vraiment day yëq. mais mais a euh, loo xam te doo ko mos a fàtte. si nga dem fenn doon def benn conférence nga daj neex loolu wala loo xam te yéem na loolu. si ay si ay anecdote yu ndaw rek quoi. histoire loolu wax euh, mas nañ ma invité ci benn réew moo xam ne billet bu cher laa dagg ndax. Euh, lu gàtt gàtt da nga da nga da nga da nga boo jaa man nga jaare Maroc mais mën nga jaaree Washington nga dem fa euh, pour pour boobu bi ma ñëwee ci dëkk boobu war a def conférence bi dañ biñ ne suba woon noo fii dafa ay naar yu fi nekk xam naa faaw wàññi dimension waxtaan wi pour gën koo suufeel nangam naan ma ma ñëw ñëwatuma ñu ne ma déedéet waaye bi ma ñëwee loolu li ma gën a neex mooy bi ma waxtaanee ci Serigne Touba ba noppi lu ma ko fàtte mukk benn naar moo jóg benn costume bu ñuul sol nii dafa jóg jox ma loxo na ma Cheikhul Khadim fardun wa laysa lahu nadhir ne sëñ Tuubaa kenn la amul morom loolu bokk na ci li ma neex man waxtaan naa ci baas ba nit génn àdduna waaw waaw waxtaan naa ci baas ba nit génn àdduna wallaahi te te booba mi ngi wàccaay sax wala wala wala wala si wala seetal ma waxtaan mm, ba mu génn àdduna loolu lépp dal na ma ci biir jataay yi. mais mais yéen seen vie de famille parce que toujours yéen si programme yeeg yooyu euh, tey danga am secrétaire am staff am lépp nga xam te ni ku bëgg wax ak yow si moom lay jaar n'est-ce pas am da am groupe daal. waaw noonu nag ay murit lañ xam nga nag man man damaa bariwul ay dama bëriwul lu may protocole gis nga bi ngay ñëw. yomb na lool si man wax dëgg yàlla nga ma ko lool loolu moom la maa ngi koy seede euh, franchement am nga si yéene lool pour jàppale askan wi gindi leen waxtaan ak ñoom euh, si fànn bu ni mel euh, ba ma ñëwee am benn jafe-jafe. xam nga mënoon naa ko doxee neneen am na gardien pour guddi gi pour kër gi moom xale yi dañ fi nekk ak yooyu comme du ma fi nekk léegi léegi gardien bi nekk fi ci ci guddi gi am na un jour lu tax sama fi indi gardien yi indiwuma ko fi waa kër sëñ Tuubaa ko fi indi encore sëñ Modou Mamoun moo fi indi gardien parce que dama mës a génn benn conférence ñëw am ay saay-saay yu ñëw bi suuf sëñ Modou Mamoun si bilaat mi ñoo ko indi ak sëñ loo Lo Ngaabu ñu indil ma fi gardien ñi moo tax kër gi am gardien ne kon mais bu dee bëccëg gi amul dara ku ñëw dangay ngay agsi ci man amul benn problème bu dee wàllu liggéey bi comme nit ñi dañoo tolloowul ay xel te bëgguma kenn mer te léegi-léegi dama daan am erreur conférence yi damay jaxase conférence yi léegi-léegi parce que tey fii ne man am na conférence yu bu dee samedi yi fii ne maa nga 18 janvier 2000 2000 2020 kon xam nga yooyu dafa dafa dafa sori yoo xam day dem ba ay 2020 ci ci ci programme yi léegi nag loolu dama ko teg ci loxo am na ko ñu wax Modou Sylla moom laa jox loolu moo yor lu jëm ci programme yi boo ma wooyee ne ma dama bëgg conférence ma ne la woo ko ngeen coordonné mu ne la sëñ bi ban heure lay lan mooy thème waxtaan wi wax la condition yi parce que bëgguma surxu surxu bëgguma toog ci ay baas coow di am bëgguma it yenn manque de respect yi parce que du xaar du toog ci ay jataay mais mais mais yow say fait doo bind da ngay ñëw rek di wax ah, <laughs> loolu loolu jaaxal na ñu bari aussi. non dama koy mokkal mais ay saag laa yor sama oto bu nekk ay valise ci ne xam nga loolu it ba tey mooy man conférence yi dafa bari damay bind thème bu bees mais yàlla may na ma feex nag presque lu ma liir ma ko liiree deux jours trois mokkal ko. loolu mooy waral loolu mais oto bu ne samay oto yi gaare oto bu ñu nekk ay valise ci nekk te valise yëpp ay thème la mais thème yëpp Sëñ Tuubaa la léegi nag bu fekkee ne thème boobu développé gu ma ko dama koy tiim waxtaanee ko mais bu ko waxtaanee un deux koy mokkal parce que man laa gën a gën a gën a kii mais am na parce que mën nañu wax ni yaa doon numéro un yaa ko doon ba léegi si gis parce que euh, terrain bi moom foo dem yow lañ fa doon gis ba Dakar ba partout mais dafa am ay ñu bees ñu commencé ñëw aussi nekk say tànk ñu ngi dugg si biir Touba léegi eh, di di di di def ay conférence di fayeeku oh, tey loolu noonu est-ce que du du la déranger eh, ñëw ba sa territoire. déedéet xam nga nag xam nga nag sëñ Babacar yëf du loolu. Hmm. man man man xam nga tey tey man mënumaa waxtaan Tamba waxtaan waxtaan Louga mënumaa waxtaan Ndar <laughs> waxtaan Bignona ah léegi nag te sëñ Touba fu ne lañ koy tàntale fi ne am na jànkat yoo xam ne mosunoo daje. te bët bu set ñi ngi takk seen oto di jàngi parce que fa ñuy jëm mënu ma faa jëm hmm? fi ne damay toog nii nii di wax ak yow fekk maa ngi jëm fu sori loolu dafa tuuti fi ne ñiy waxtaan dañoo tuuti ñiy waxtaan Sëñ Tuubaa dafa tuuti dafa tuuti maanaam dañoo a toll ni ni murid di toll ni la waxtaankat yi waroon a toll nga xam ne ku tànt rek am ku fa ñëw mën a waxtaan Sëñ Tuubaa mais tey bu dee dañuy jël ñaar wala ñett wala fukki nit day diis parce que man am na ñoo xam ne maa ngi seere jëmmi Sëñ Tuubaa bëgg ma ñëw seen conférence dem nañ fi ne le 26 décembre 2020 des na deux ans mais ñu ngi topp lu ma cinq ans dix ans mënuñu am parce que date bu jàpp day fekk ma joxe date boobu wala mu fekk mu doon màggal annuel goo xam ne dama cey dem mais ñu kar la fi ne bu bu bu ma sensé sama programme rek am na ñu ñàkk seen bis léegi nag tey man bu ma sañoon te man li sama jubluwaay man xaw ma nag keneen. mooy sëñ Tuubaa ñu xam ne amul moroom message su sëñ bi jàll man ku ma mën a yuuxule da may yuuxule parce que nag bu dee luñ ciy sagoo xasaa yi door a nga ne teg sa bët sa bët 2014 la yaakaar naa dem naa ci réew yoo xam ne am na ñu ma fi jiitu mag ma tegagul fa seen tànk ah xaw ma it ba tey waaye sëñ Tuubaa sagal na ma ci ci ci ci ci ci ci ci ci li ma ci nekk kon lu mu gën a yaatu sa xel day gën a ndax mbir boo ca nekkee yow dong ñu ne du dem dama bi may waxtaane sëñ Tuubaa fii dañ daan wax waxtaane sëñ Tuubaa mën na su cee dem sëñ Tuubaa képp mën na su ko waxtaane danañ ci jóg tey nag boo demee ba mujj ay ñu mel ay gànna mesere yu baree bari ñëw di teg cachet di ko laaj ñu di leen ko jox yow sa xel day dal yow mi nga xam ne xàll nga loolu jërëjëf sëñ Gana amoon nañu mbégte lool ànd ak yow parce que li ñu war a waxtaanee moo tax sax benn émission mais yaa ngi gis man na xam naa dañuy yëg bàyyi la nga yokk mbokk auditeurs yu RFM ñu tëj jotaay boobu neen yoon incha allah jërëjëf sëñ Babacar noo ngi lay sant di sant yi ñuy déglu lépp loo xam ne ne dégg nañ ko ci wax ci mu nekk njuumte maa ngi koy jéggul na ngeen ma ko baal doomu aadama matul nil ne parfait seul Dieu nañ ma ko jéggal waaye daal suñu yitte mooy gëstu sëñ bi ak jàng sëñ bi amuma benn yitte amuma genn bëgg amuma benn doxiin lu mooy jàng sëñ bi ak jàngale sëñ bi bëgg naa daara joo xam ne sax noonu lay tudd daara jàngale Cheikhul Khadim te programme yi maa ngi ci yenn chantier yi maa ngi ci nangam la di la sant yow bu baax a baax ci ci ci li ngeenu boole occasion bi ngeenu may di leen ñaanal yàlla yàlla jàppale leen ci liggéey bi ba ni ngeen ko bëggee lépp ngeen defe ko doole nag di ñaanal Cheikh Mahamadul Muntaxa ñaanal suñu ñaanal kilifaam gu baax gu di Alaaji Maam Cerno Mbakke ak kilifa yu baax yi ne ci dëkk bi yëpp borom xam-xam yi kilifa yi ngànk yoon wi la ma leen waxoon nag noo ngi gën a nekk ay taalibe gën a nekk si ñun daal benn benn adversaire képp lañ am mooy ku xoos sëñ bi bu dee suñ jëmmi muñ leen ko ndax loonu wax ci lu nu naqari sëñ Tuubaa def nañu ko ci lu nu neex loonu xañ ci sa bopp sëñ Tuubaa may nañu ko ci boppam kon nag du duñ lekk teraangay sëñ Tuubaa ji di ko bàyyeeke noonu ku ne ko xoos daal danaa ne la xaraas xaraas xaraas xaraas wasalaamaaleykum wa jërëjëf mbokk yi amoon nañu mbégte ànd ak Serigne Gana Messere di conférencier si yoonu Mouride euh, jox leen euh, ndaje euh, ba beneen yoon si beneen jotaay incha allah jaajëf.